auzu billahi mina seytaani rajim ah, ñi ngi tàmbalee ci turu xonq yooyu man Mamadou Sarr laa tudd maa ngi dëkk fii ci xonq yooyu ah, xale yi nag jiital nu ak mag ñi ñëpp ñu war a mën a wax tey suñu jafe-jafe fii ci tund xonq yooyu ndaxte mën naa wax ni xonq yooyu moo ci gën a ëpp jafe-jafe jafe-jafe yooyu mooy dëkk yëpp xëy na xaw na leen dànd tuuti waaye nun dafa ñëw ba suñu taati néeg yi fi mu toll nii tellement ci sunu tool yi nga xam ne moom lañu daan jëfandikoo di ci suturloo di ci yor suñu tool suñu suñu njaboot gi léegi tool yooyu nangu nañu ko ci njëkk a nangu ñu dul waa foore waa foore la CCO jiital Eaux Forêts ñoom la CCO jiital moom mooy mooy doole CCO ci askan wi léegi nag bu waa foore ñëwee ci tool yi fii waroo ko waroo fee bay waroo fee def ni day fekk nga def fa say teen nekk fa ay juróomi at juróom benn at yàgg njaboot ñu fekk la fa alamaan la dañ la alamaan ñaari million ba ci ñeenti million tëj la juróom benni ati kaso loolu lañ loolu la ñuy wax ci seen loi nee na ci nun ci nun mbay dong la ñu xam ci suuf la ñuy dund ci suuf la ñuy dellu kon nag mbay dong la ñu xam ci suuf demoon ni si gaal yi dugg bato defu defuñu dara mbay la ñu xam tey mbay la ñu xam ëllëg léegi nag dugg nu suñu réew xañ nañu suñu mbay bëkk démb daño ñoo alamaan tëj sama doom tëj nañu ko am na fa lu mat ñeenti fan ñu tëj ko fa alamaan ko un million lañ ko waxoon daañu la ko alamaan di waxaale di waxaale me ni ku yor ay jur di waxaale ba ci ñi ba ci ñeen fukki junni ñu mujj leen koo jox ñu mujj leen koo jox ñu ne ko nag mu ne ñu ne nag da ngay signé pour ñu ni bàyyi nga tool bi mu ne lank naa signé wu ma ba léegi si ñëwul dafa bañ ba ñu demee ba ñàkk pexe dañ ko tëj sànni tegul fenn parce que euh, bi bi fi si woo duggee xonk yooyu am na ñu ñu woon man ci laa woon waaye lañu ñu waxoon ak lii bokkut ça fait deux bu ñu ñëwee daañu waxtaan ak yéen tetal leen dalal leen tant déglu seen bëgg-bëgg ñun suñu bëgg-bëgg mooy bu ngeen ñëwee ci ñun na ngeen jël xale yi ñu liggéey. bu ngeen ñëwee ci nun tool yi nga xam ne ñoo ko moom bu ngeen ci duggee si ci sañul bañ na ngeen ko nag fay nu loo xam ne si war naan cee mën a dund suñu dund euh, tool yi moom rek la ñu am fi na tool yi bu ñu ko nangoo nun dee nañu nun dee nañu pare nañu nun ndax mënunoo nappi jàng noo napp wax dëgg yàlla ñi si jàng ñi si jàng euh, tubaab barewul ci mbay rek la ñu xam jëm kon nag bu ñu li nga xam ne moom lañ jëfandikoo ci mbay bu ñu ko nangoo nun nu luy def dañuy dee defuñu ko ñëw rek exploité nax nu ànd ak eaux et forêt xam moom bu ne maa moom suuf maa moom garab rek moom moo moo nii lay def ci gannaawam fi toll nii noonu la noonu lañ suñu woo def ak ak eaux et forêt si li ñu mës a bay suñu maam yi ñun tool yi noonu lañ la bàyyeel ñun xale yi nulu woon demoonu fenn ñun ñun tam tool yooyu ci lañ ci nangu tool yi li ñu bëgg mooy bu ñu jaaree ci tool yi nañu fay àqu tool yi ñun suñu àq nañ xam nga du du fi am jaar waaye sañ na ni bu jaaree nañ gis suñu ba ñu gis suñu bopp ñu jël booy yi booy yi liggéey ndax xonk yi ni ci tam matul matul sax juróomi nit matul juróomi nit waaw nañu jël ñëpp ñu dem liggéey waaw nañu jël xale yi dem liggéey yi moom la ñu bëgg tey moom la ñu bëgg ëllëg ndax sa alal kat boo ko jëlee ba pare war ngaa na war nga kaa toftal ñu àndal ak man nga liggéey tax ndax mu gën a yokku mais dañ ñu gën a wàññi waaw ñu ngi lancé appel gouvernement bi mu jàppale nu mu jàppale zone bi ci xam ni mbay la am duggu nu ci gaal dugg nu ci kanoot dugg nu ci oto mbay la ñu xam kon nag sunu mbay mi nga xam ne moom la ñu dundee moom la ñuy jëfandikoo moom la ñuy di ci di ci def di ci siyaare di ci def lu mën a doon nañu si jàppale bàyyi na sunu mbay bu ñu mënu bàyyi sunu lan la domancé loo xam ne si mën nañu see jàpp sama sama première dama ne xuloo xuloowunu parce que amuñu xeex ak amuñu droit xeex ci duno ko def tey ci duñu ko def dañuy laase ñi nga xam ne ñoo am nañu doole ci am kartan ti am baat boo xam ne am nañu xolu yërmande ñu yërëm ñun loolu la ñu sakku. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. man Mamadou Dieng laa tudd dëkk xonq yooy commune Darou Khoudoss bokk ci région Thiès ñun suñu naqar mooy dañoo nekk ci dëkk bi ànd ak sunuy doom ak sunuy rak ñu war a liggéey te képp koo xam ne tool yi nga xam ne ñun ñoo ko yoroon sunuy maam sunuy papa nekk ci di liggéey fu ci xale yi dal. eaux et dikk ni la tool bi dan nga koy bàyyi dañ koy suspendre te ñoom ci mbay rek ci moom la am tool yi ñu bëgg a nag dañuy jël jox la teg la ci alamaan di la ci arrêté te nun loolu rek lan am eaux et forêts ba mu fiy ñëw fi la fekkoon sunuy papa kon bu ñu àndee ñun ba heure bi kon war nañoo man négocier ak ñun ñu ànd ak ñoom ci ànd bu rafet ñuy liggéey ñoom ñuy liggéey te duñu waa du leen wàññi dara duñu wàññi dara ñun nag am nañ lu nu metti lool ndax fi mu toll nii li ñu nekkee ñoom mooy dañuy ñëw jël sa tool suspendre dootoo ci mën a jot loolu nag neexuñu ñoo ngi koy jooy képp kuñ ci mën a jàppale na nga ko yëg xeexuñu jëlloowuñu kenn yet wutloowuñu kenn di baare tali taaluñu ay pëno dañoo bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ci état bi déglu nu dégg sunu jooy yi luñ ñu man ñu saafaraal ñu ko sonn nañ nag te balaa ñoo yëngal naka ñëpp yëg waaw lool lañ doon sàkku. taxaw bi ñu ma taxawoo man mi la ñu jàpp ci sama tool ndax dañ maa fekk sama tool may liggéey ñu jaay ma doole jaay doole gi mooy fekk na ma may liggéey ñu ñëw wër tool bi ak seen oto yi bi ñëwee wër tool bi daal di may woo téléphone ni ma ñëw nañ sa tool fekk ñu la fa man leen waaw ñu nu ma léegi. bu subaa nañ fa daje man leen waa baax na bi ñu xëyee ñu daje fa ak man bi ñëwee wër tool bi daa ni ma kañ nga jënd tool bi ma expliqué leen ko daa ni ma waa baax na léegi noo def ba de commencé liggéey tool man leen fii am naa fi ñeenti at maa ngi liggéey tool bi gàncax gi boo leen gisee ko liggéey ñu ni ma waaw may ñu ñu gisee ma bàyyi leen ñu gisee seen biir ñu ñëwaat si man après ni ma déedéet dañu natt tool bi man leen lu tax doo natt tool bi ndax tool yi fi nekk yëpp natt nañ ko moom des bii ñu ni ma déedéet duñ ko natt daa taalaat seen oto dem biñ demee sa suba ko ñu xëy woowaat ma téléphone ni man nañ si tool bi man leen maa fa man heure ba la ñëwee di ngeen ma fekk keroog biñ ñëwee dañ ne ma da ngay bàyyi liggéey bi génne matériel bi ndax machine bi dafay war a dugg man leen du ma fi génne euh, matériel benn du fi génn si tool bi fii ngi ma nekk nii foofu laay nekk ba léegi bu fekkoon da ngeen may euh, machine bi day ñëw jaar sama kaw dina jaar sama kaw mais dara du fi jógee ñu ne ma xam ah, ma ni leen waaw ba ma leen waxee loolu après ñu ne ma kon baax na da dëgër bopp man leen waaw man amul dëgër bopp sama alal laa nekk du dëgër bopp ñu ne ma waa kon baax na daal di taalaat seen oto dem bi mu demee keroog samedi bis fii laa daje Oussefourie fii ñu taxaw nii ñu ñëw ni ma sa tool lañ jëm man leen na leen dem man maa leen yóbbu si tool bi biñu demee ñu xool ni ma tool bi tool bi bees la man leen tool bi ñeenti at man maa ngi koy liggéey ñu ne ma déedéet fii tool bu la man leen fii ñeenti at man maa fi di ko liggéey forage yi ba leen ko xoolee xam ne yàgg fi bassin yi ba leen ko xoolee xam ne yàgg na fi man ñëwuma pour kar am liggéey liggéey ndax man liggéey xam maa ngi ñaari soxna ak ay kon man nekkuma fii di naan damay dem si gaali wala dara damay bay liggéey ndax man liggéey laa xam. bi ma leen waxee loolu après ñun ma kon léegi baax na yaa ngi dégg léegi dañ lay daggal convocation nga wuy si man leen waa baax na mën naa nekk ñu daggal ma convocation mu wuy ji altine ba mu demee may ñu moom moo wax dama àgg rek ñu ma si prison bi wallahi lazim juróom benn fan def naa ko fa bi biig lay door a génn biig si ko yor njaboot di liggéey di laan dooleem sàcc ma rayu ma nit toxu lu bon bay la ñu xam ñun dañuy bay dañoo bëgg jaay doole ma alamaan ma fi un million lañ ma wax moom ngay fay wala duñ la bàyyi si ku daggul garab nekk sa tool di liggéey ñu ñëw ni ma un million man leen du ma fay dërëm loo leen man nag dañ leen si dem dañoo dem di waxaale man mel na ku jur di waxaale ba mujj ay deux cent mille francs lañ ma moom ngay fay a bàyyi deux cent mille francs laa fay ñu may a bàyyi ak boole koog tool bi da ngay signé wala da ngay leen ma signé ñun ne ma kon da ngay ñàkk man leen wallaay dinaa lu mënti am da ngeen di jaar sama kaw rek mais du ma du ma ba léegi may wax ak yow nii signé wu ma ñoo ngi ñuy jaay doole kër moo fi dafa tabaxee boo fi yëree sa kër sax balaa nga koo tabax boo amee ay garab boo demee ñan leen ñu lànk boo ñëwee di dagg ñu baare la am na fa xale yoo xamante ne ay xale yu ndaw la lañu ñoo ngi tabax seeni kër ñoo leen fay fekk li leen néewal doole baare nañu seeni i kër si oso si oso foore rek eaux et forêt la ñuy joxe fo waaw moom la ñuy joxeñ baaraam ndax voilà sonal nañu sonal nañu torop sonal nañu torop waaw eaux et forêt bu teewoon moo ñu sonal sonal nañu lool ñun ndaw ñu sonal nañu te eaux et forêt ñoo ñu sonal loolu laal ñu alamaan la xaalis bu bari waaw li ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñoog suñuy tool ñu bàyyi ñun soxlawuñu xaalis bi nañu bàyyi ñu liggéey ñun liggéey la ñu xam ak suñuy kër manoo man sama wàllu bopp fii may wax ak yow nii sama 4 hectares gi fii yoo xamante ni dañ koo si man barki Serigne Fallou Mbacke joxuñu ma dara joxuñu ma dara ba ñëwee fekk ma ma yor sama tool liggéey tool bi 4 millions presque fare naa ko si bi ñëwee dañoo arrêté lépp baare tool bi suul bassin yi ma defoon foofu yëpp machine yaag yëpp ñu yàqaate ko alamaan ma si 400 000 francs ma liggéey ñun ma buñ la fekkee dañ lay tëj ba tool bi noonu laa ko mujjee ñàkkee ndaw laa fee 4 hectares et demi man plan bi mi ngi man 4 hectares et demi bi ñu defee plan bi moom la bi ma indee plan bi man war naa leen ko ñun ma fii oso forêt moo ko moom forêt classe la fii doo fi bay noonu laa jël waaw te o dara amu fa wallahi amu fa waaw ñeenti at maa nga fa nekk di fa liggéey sonal nañ ma nag sonal nañ ñu sonal nañ ñu trop trop trop trop sonal nañu wi waaw boo tabaxee ñu ñëw ni la daaneelal sama rak tabax na fi kër goo nga xamante ne ma nga ne dañ koo daaneel wallahi lazim ñu demee léegi mo leen ko tabax ba mu egg ñu ñëw ni ko da ngay daa da ngay daaneel dañ koo tëj yóbbu ko ko tëj ba bu ñu dañoo mujj a daaneel tabax bi ñu koy door a bàyyi sonn nañu sonn nañu trop parce que forêt sonn nañu sonn nañu te MDL bi rek waaw tey boo gisee ñu sonal ñu nii mooy bi saison duggee fii la ñu commencé sonale nii ñu sonale boo nekkee si tool ñu boo nekkee si kër ñu nangu foo mën nekk ñu fekk la fa ko li la jaay doole waaw tak boole koog di la alamaan ñun ay ndaw lañu dañuy liggéey liggéey la ñu xam bay la ñu xam demuñu fenn nekkuñu fenn liggéey rek la ñu xam jaamu yàlla waaw demuñu si gaal yi demuñu si dara dëkk baa ngi nii poussière na ba yàqu cin yaa ngi ne tey boo déggee cin poussière da koy yàq boo doo lekk si bit si biir néeg yi ngay lekke wala poussière bi yàqu ko su tali bu bon ay ran ran yi bon la ñuy defal barki dem boo njaay sama benn oto laal keroog borom oto bi ba papaam daa mujjee yëkkati fay ko waaw si lépp dara waralu ko lu dul tali bu bon ab ran ran bu bon la ñuy defaral poussière bi doo sol yore yu weex doo fóot ku fóot doo weer léegi jigéen ñi kenn fóotatul kuy fóot fi doole nii doo nangoo weer sax si lii ñi ndax boo weeree mu poussière ba yàqu waaw sonn nañu trop sonn nañu waaw waaw jàmm ta koy sàkku ci yéen waaw tubaab dafa wax ne la répétition est pédagogique mais nag lii ma leen wax dama koo dund kii li mu dund lu mel noonu laa dund maak moom ñun ñaar lañ jàppandoo ñun ñaar lañ sanctionné ndoo man fii laa dëkk ci dëkk bi di bay da nga wax ji yor tool boo dëkk bii di xonk yooyu fi laa dëkk di bay rakku chef du village bi moo ma jox tool bu mu doon boo xam ne da koo jëloon di ko exploité depuis juróom benn at mu jox ma ko may ma ma yóbbu ko dem di liggéey da nga wax ji eaux et forêts fekk ma fa na ma yow kon moo la jox tool bi ma ne ko tool bi rakku chef du village ma ko jox ñu ne ma fii waroo fee bay ndax tubaab bi dañ koo soxla ndax forêt classée la waaw ndax ndax tubaab bi dañ koo dañ koo soxla ndax forêt classée la ma ne man de bu ngeen mënee forêt classée dana ma jaaxal ndax ay tool laa diggandoo yi ci ay ay tool ngeen jaar ba ci man te it yéen da ngeen a wax ne tool bi dañ leen koo euh, signalé depuis mois de juin yéen mois de juin lañ leen signalé tool bi ñu toog seetaan ma ba def sama exploitation ba dafa une valeur de cinq million huit cent mille francs ngeen ñëw ne da nga may stoppé loolu du ko def lool dana métti ci trop te man sàccu ma fenn ma béy rek laay def ak sàmm loolu laay liggéey ñu bindal ma convocation ñoom ñaari eaux et bu Thiès ak bu Tew ak bu Louga ñoom ñëpp ñoo ñëwandoo si place ci place bi ñoom ñaar kenn ku ne bind convocation ma ne kenn nit laa benn tool laa yor du ma wuy ñaari région ñu ne ma kon fii suufu Thiès la bokk da ngay wuju Tiwaawan ba ma demee ñu ne ma 1 million 500 ngay fay wala doo fi génn sama tëni bii ma sol moom laa sol ma ne leen béykat bu jóge ca àll ba ndëkkiwul sax ngeen di ko laaj 1 million 500 bu dee loolu bu ngeen leboon ngeen dugal ma ci kaso bi da nga wax ji keroog fa la ma téye ba laa fa jóge lekk ma naanu ma ñu bàyyi ma ne ma mercredi nga ñëwaat mercredi bi ma ñëwaatee ñu téye wax ji fii may wax ak yow quittance baa ngi sama porte fay loo nañ mille ba pare bi ma signé bay départ ñu ne ma caw xam nga lan la lay yëgal tool ba bu fa sa tànk ma ne leen woo leen seen agence yi nekk ci àll bi ñu woo agent bi agent bi ne leen wax dëgg yàlla tool bi matériel mu ngi fi ñetti forage a ngi fi solaire bu jaay 1 million 400 mu ngi fi matériel bu jar 600 mille a ngi fi ak maanaam peine boo xamante ne ni mënuñu koo xayma mënu ma koo ndax maak huit personnes ñoo fay xëy un mois 20 jours ko doon ñàkk rek 600 mille laa leen fay ñu ñëw alamaan ma ne ma da ngay bàyyi tool bi abadan ma ne damay lànk du ma ko def ndax tool bi yéen fi ngeen ma fekk may liggéey da nga wax ji kon tool bi mënuma ma koo bàyyi di liggéey kon nag bu fekkente ne nun bu fekkente ne nun béykat yi ñëw nañ ñu ne nu fii forêt classée la tubaab bi bu ñëwee ñu bàyyi ko ne ko exploité nu mu la neexee maanaam fii daal soo amee baat di nga fi am tool suñ la xamee da nga fi am tool mais ñun néew ji doole yi kenn mënatu fee am foo béyee kenn mënatu fee am foo sàmme gars yi nga xamante ne ni barki Dembo Ndiaye sarax la ñu am dem yëpp ay sarse pour ñëw togg sunu sarax dañoo eaux et forêt nangu matt ma a wax ji xoolee ni usine baa ngi nii suñu ginnaaw plus de mille et quelques hectares lañu exploité daaw jéeg bëri ni alali jàmbur lañ ko lañ ko def doon ay étranger nunu juddoo ci dëkk bi yaroo fi màggoo fi duñu béy dootuñu sam dootuñu tabax kër loolu lañ bëgg état bi yëg ko képp koo xamante ne am nga baat nang nu ko waxal président Macky Sall parce que nu xongo yooyu sonn nañu dee nañu tay nañu roose fii may wax ak yow maa ngi koy du ko bàyyi nag duma ko bàyyi tey duma ko bàyyi ëllëg fa lay xëy lu dul jeex la man a andi lu ne la mën a andi ndax li mën a andi li li mën a andi tey xoolal station bi biñ ko sanctionné ak léegi mat na sept sept ans mu ngi fi doomu dëkk bi moo ko moom liggéey ko ba yegg si fii waa Eaux et baare ko xoolal ñaata hectare la la GCO exploité seen ginnaaw da wax ji ku jóge ci réew ma bitim réew tubaab bu ñëwee ñu may ko lu ko neex mu def ci dëkk bi. ak ak tubaab yi borom tool yi gi rek. naa tax ndaw yi jël gaal yi dem. waa yow ñu si sama ginnaaw si barke li ma lay wax mooy. li ma lay wax mooy. maanaam conséquence bi mën a andi du jeex du xaaj. parce que jigéen gu bu fekkente ne day bay nga ne ko doo fi bayee day sàmm nga ne ko doo fi sàmmee te mu war a war a teral ay waajuram teral mu dem ci gaal gi bërki dem moo njaay am na benn boy boo xam ne mu ngi fii victime la su fekkonte ne temps bi maye ko dina ko jël da nga wax ji maanaam ah gaal gi saviré woon gaal gaal gi demoon ba teer bu Cap Vert Fass booy boobu booy boobu yàllaa ko dimbali ci la bok fondation mu nga nee taxaw eaux et forêts ñëw da koo dafa liggéey roose ba am toolam ba am doole daal dem def fondation pour dëkk fa ak soxnaam dëkk fa ak soxnaam eaux et forêts ñëw baare ko di ko alam ne ko dañu lay alamaan cinq cent mille francs booy bi ci colère boobu la jógee ba ne damay génn dem ci gaal yàllaa ko andiwaat waaye demoon ndax saa ñun li mu dal métti na mën a andi kenn mënu koo xam lii ñii li ñu nar a teg fii xamuñu ko askan wépp lañ nar a rey ah, ndax li duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg mënuñoo ñëw tubaab bi jël dinu liggéeyloo est-ce que wax ngi dégg nga wax ji tubaab bi waaw tubaab lu ko neex lay def nun étranger yi nun nun ñi nga xam ne ci dëkk bi lañ dëkk mënuñu fee def dara borom barke yi ñu ngi toj àll bi yëpp def ko ay tool ak i nun ñi nga xamante ne amuñu baat amuñu kaddu ku laal ñu tëj ku laal ñu jàpp man nee nañ bu la fa fekkee directement procureur lañ lay jëmee maa ngi leen xaar nag sama tool def naa fi investissement ay xaalisu banque laa lépp nekk naa fa di liggéey deux mois valeur 5 millions 800 def naa ko fa da nga wax ji alamaan nañ ma 1 million 500 maay hectare bi nee na ma di nga bàyyi bi fu ma mën a dem réclamer naa ko dem naa agriculture woo ki moo yor wàllu mbay mi dem naa biroom mu ne ma dinaa la woo boobaak léegi wootu ma démb mu mujj maa ngi koy woo jëluma téléphone jaaxle nañu sonn nañu jommi nañu da nga wax ji nun nag dañu sonn torop ndax sunu xale yu góor yi MDL bi mu fi ba tey kenn gisu ci sa bopp ba kan kan waaw nun xale yu xale yu góor yi sunu sunu njaboot gii kenn gisu ci sa bopp ba kan ñëwee ba tey la ba bi ñëwee ba léegi CCO CCO bi mu ñëwee ba léegi nun gisuñu sunu bopp ndax xale yaa ngi nii amuñu lu dul seen tool yi di liggéey seen tool yi waa CCO ñëw nangu seen tool yi fayuñu leen a ah bu ku dem sa suuf ñu bëgg la mënoote di la di la tëj. di ñoom xamuñu lu dul liggéey roose la ñu xam. léegi jigéen ñi lan la leen si woo yàqal. waaw nun jigéen ñi li mu nu yàqal mooy sunu marché bi ndax sunu marché bi ñii ngi naan dañ ciy def dépôt ñii ngi naan mar defuñu ci marché te nun amuñu lu dul nun jigéen ñi marché yi ndax bu nu sunu jëkkër yi xëyee dem ca tool ya nu nekk ca marché ba di liggéey. di gis suñu bopp ak góor ñi. léegi lu def si marché bi waaw léegi marché bi noonu noo ngi indi béton bi rek di jar rek te xamuñu nun luñ ciy def léegi nag loolu la ñuy laaj. fi mu ne nii yéen a ngi xëy wala. noo ngi ah nu ñuy xëyee nun kañ noo ngi toog di xaare ndax nun gisatuñu marché gisatuñu dara sunu xale yu góor yi ñu ngi dem ci géej gi ñi ngi dee ñii jël nañu seen tool yi xam fu ñu jëm ci noonu tedd tedd la ñu xam ñoom liggéey rek la ñu xam. waaw liggéey rek la ñu xam. ban appel ngeen di lancé. ah ban appel ngeen wax Sénégal. li ñuy nguur gi mu dimbali nu seen baay yi sonn nañu amatuñu seen jabar yi sonn nañu amatuñu tool yi ñu liggéey amatuñu marché yu ñu liggéey ñu ngi toog xale yaa ngi dem ci géej gi di dee sonn nañu torop ñu dimbali nu ci nguur gi wax dëgg yàlla sonn nañu wax dëgg yàlla ngi yàlla dimbali leen nu fajal nu lii ndax amuñu lu dul tool yi ak marché bi nangu nañu tool yi nañ nu defalal sunu marché bi nu nekk ci gis ci sunu bopp sunu njaboot di gis sunu bopp xale yu góor yi gis ci seen bopp ndax xam nga ni géej gee nga di fa dem dugg ci géej xam nga ni mbaa su woon suuf si kenn nangu ko ñu liggéey seen suuf si ba am paasa avion waaye amuñu ko loolu nag la ñu bëgg ngeen dimbali. fàttali waaw man Fatou Kiné Sarr. man doomi doomi dëkk bi laa sama papa moom moomoon dëkk bi waaw. sama njaboot gaa ngi fi ak samay mag ak samay rakk ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom ñu ngi jël seen i tool yi ñu ngi nii di jox si seen tool yi kii doon wax léegi sama doom la. jërëjëf